waaw asalaamaaleykum gone yi li tax ma woo leen dama leen a bëgg a nuyu ba noppi waxtaan ak yéen damaa seeti si sëñ Seex mii seenub sëñ daara waaye seet si leen seet si ko ngir soññi ko ak gërëm ko ak ñaanal ko waaye yéen itam ba dénk leen te bëgg ngeen déglu mu baax te xam ne ay gone ngeen waaye gone du tee bëgg bu baax gone yi du te gore gone yi du tee doonu murit kon nag fas leen fas leen yéene mag ñi duñ leen ëpp pas-pas duñ leen gën a gore duñ leen gën a doon tari loolu nag li leen koy may bañ a boole Sëñ Tuubaa dara fii ngeen toll nag da ngeen di fas yéene kenn ku ne na xinti woo jaayanteeg Sëñ Tuubaa doonum Sëñ Seex Sëñ wala liggéey bu ngeen góor góorgóorloo def seen xel ne da ngeen war a mel ne Sëñ Seex bu ngeen ko melut it da ngeen ci am lu doy sëkk fu ngeen dem tane seen i morom waaye nit du tut bët gone dutee bëgg lu baax. ab yónent rek moo mënta amati waaye cër bu yàlla bu yàllay may yàlla mi ko mayoon jógu ko ku ko wutit man nga ko te doon ko nag du te bëgg lu baax kon nag xool leen fu sori te bëgg kenn ku ne na fas yéene gën a jub morom ma ëpp xam-xam morom ma gën a doon taalibe bi morom ma bu leen wutit kenn ku ngeen di roy ku dul moom nii bu leen am soxla ci rajo yi bu leen am soxla ci téléphone yi bu leen am soxla ci télévision yi bu leen am soxla ci ñiy football leen daara ji rek muy seen lépp def leen alxuraan seen dégg ngeen loolu bu ngeen ko defee bu ëllëgee da ngeen tane seen i morom te kenn kenn ngeen du ñeex te ñëpp leen di ñeex da ngeen dénk bu baax a baax jërë ngeen def. ñu ko doon sëñ Cheikh. Mm. di leen ko bi. <laughs> yàlla na sëñ bi bu baax. te mm. dañ bëgg ci ñoom it nga am ko nañ ko bëgg. bu mm. ngeen sàmmante ci kanam si. incha allah jërëjëf jërëjëf. jërëjëf loolu rek moo doon tànk yi jërëjëf. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa bi. Serigne Cheikh moo lay jot li kàddu yu nuyoo kàddu yu cant tey jiital ñaanal la nga yàgg fi lool ci wet di nga yéene liggéeyal Serigne Touba nga àggale ci sa sago ci barke Cheikhul Khadim na mu ngi jégalu nag kàddu yi mu may jot loo moo ko bëggoon a yëkkatil boppam waaye nag xëy na xalam fees na ba tax na na mu ko bëggee woon du ko mën a noonu mu sant ba ma jottali ko xanaa may doglu ngant rek ne lu ci manqué wala lu ci dëng ci man la waaye moom ni ma ko saa mhm. mat na lool te jot na mhm. la ci jiitu mooy cant ak ngërëm mhm. loo xam ne ëmbal na la ndax sa taxawaay bii nga taxaw ci wetam du tey rek yaakaar naa ne képp ko xam daara ji xam na ne say tànk bari na ko lool bari na bari na ko lool la ko dale ci daara ju njëkk ji ba fii saa su nekk it yaa ngi koy taxaw di ko dimbali moo tax sa teewaay bii nee na wuutale ko ak sa wajuru tedd wa tegoon tànkam fii doy na ci moom lool lool lool te nee na wóor na ko ne féetewu la fenn fu war a war a tax nga di ko taxaw taxawaay bu mel nii wala ngay jëf ci moom jëf ju mel nii kon nag bëgg koo dimbali ak bëgg koo dëgëral ak bëgg koo taxaw ci liggéey bi mu nekk rek a tax te loolu lépp wóor na ne ngërëmul Sëñ Tuubaa rek nga ciy wut kon nag ngërëmul Sëñ Tuubaa loolu nga ciy wut yàlla na sax di dotti ko ci sa amiin amiin am na fan bu gudd lool ak taxawaay bi ngay taxaw ci moom diiru ba mu doonee tuut tànk ba nëgëni nga ko daan def yaakaar na ne li ko def ci ay barkeelu ci yu bàyyi ko ci ku tedd ka yaakaar na ne mosu ko jële ci kenn ay mbubbam ak kopp yi mu daan naaneek ay dàllam ak yu bare bare bari yoo xam ne ñun ñi ban lañ ci seede ndax am na way wum ci a bind wu yàgg yàgg yàgg woo xam ñi dañ ko daan dañ ko daan wayante bu yàgg waaw loola loola loola xam nañ ko bu baax kon nag nee na ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm bu baax a baax a baax te di la ñaanal bu baax taxawaay bi ngay taxaw it di ci di dimbali muritu Sëriñ Tuubaa yi ñun ñii ñëpp ñu ngi la ci sant di la ci gërëm fu mu murit nekk rek fu mu mën a doon ci àddina wóor na ko ne yaa ngi koy jariñ ci waaye rek ci baatin di fa yóbbu loolu nag ñu ngi la ci sant bu baax di la ci gërëm di ko jaarale ci kàddu Sëriñ Cheikh nit ñoo ngi jéglu bu baax ci kàddu yi xam naa hmm. bismillah waaw. araytani xattahu aataytani tarafan min sawbihi fa ataana al amnu min xumari araytani xattahu wa naxlahu wa laqad arshaftani qaxwatan fi kasihi bi fami loolu ma damaa waxoon ne ndax yaa ma woon ndax yaa ma woon ndax yaa ma woon bindu boppam jox ma caat lu ma yor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 يسر لي ميسر العسير ما اختاره لي بلا مسير يسر لي ميسر العسير ما اختاره لي بلا مسير ولا العين لسواي مدبرا بما على ظهري يدوم دبرا مها توجه المكاره ليا باق عبا بذكره وهو ليا عنه رديت وهو عني راضي بلا مكاره ولا امراضي رد لخير جهتي شيطانا من طيب الممر والاوتانا فر لخير جهة العين يسوقه لخيرنا المعين هديتي من الإله والنبي كليتي صفت وصافت نبي توفيق هاد قاده الإلهام خدب ديالي ما لهم بهام بدا لي اليوم برب الخيب أعاسني ممن خلوا وخيبوا لا يتوجه لنحوي متعب عن امهات مكاره وتعب سعادتي بغير محو كتبت وكوني العبد الخديم قد ثبت شكر لي ميسر العسير ما اختاره لي بلا مسير subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillaahi rabbil aalamiin waaw waaw yéen sëñ bi defal seen seen cëri bopp te ni yéene ci liggéeyal sëñ Tuubaa ak li nga yéene liggéeyal sëñ Tuubaa tax ñu mën ko nañ ko ñu ko bëgg rek ñu defal ko dégg nga maraam yaa wax jërëjëf bu baax.